tey lu am ci kër yi yéen la ñuy gis donc seen taxawaay boobu nañ ko gën a dëgëral autour de la coalition Idy 2000 pour que élection yi comme ni ngeen ko waxee léegi bu ñu defee élection yi ci journée bi ngeen taxaw tem pour sécuriser vote bi parce que ñii li ñuy fexe mooy sàcc vote bi wax naa ko plusieurs fois wax naa ko ci sama déclaration sama lettre bi ko mujjee envoyé def ko ci journal bi ñëpp dégg ko wax naa ko ci am na foo xam ne bu ñu tolloo nit war a toog ne doo wax ci sa réew da war wax ci réew te yéen jigéen ñi yéen a jëkk a wax ñun ñi nga xam ne ñooy góor war nañu jóg taxaw aussi wax ñun waxuñu ne dañuy xeex ak diw dañuy xeex ak diw ñun li ñu bëgg mooy suñu réew ñun xam nañ ne mën nañ ko yore te li ma wax président Idrissa Seck ñun ñu waxtaane ko ñun ñii mooy bëgguñu gouvernement buy tâtonner dañu bëgg au soir du 24 buñ ko buñ ñu jógee ñu am gouvernement boo xam ne day ñëw liggéey ci suba sa pour askan wi pour liggéey pour te jigéen ñi dañ ci am seen wàll